mbokk yi baaxoo di xibaaru Bambouk dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. actualité locale. ñu di ko tàmbaleeg euh, élection locale yi ba léegi ak euh, ki nga xam ne mooy euh, ex DG bu agence de construction batiment et d'office public muy madame Sossi Diop Dione gannaaw ba nga xamee ne nag le président de la république jiital Benno Bokk Yaakaar daal dina koy tabb ngir mu ngi mu jiite département bu Koungheul daal dina bind benn bataaxal boo xam ne daal dina ko ci sant di ko ci gërëm waaye di woote ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi wuyoo ci coalition boobu di benn Bokk Yaakaar te nekk ci région Euh, bu Kaffrine rawatina ci département bu Koungheul ñu daal di koy ñëw teg ko loxo ñu jàpp ngir mën a am ndam ci 23 janvier 2022 ñooñu nag ñu mën cee lim le président Assane Diop nga xam ne mooy président sortant ci conseil départemental. ak les ministres Mayacine Camara nga xam ne tey moom lañ tabb ci commune bi ak Ablaye Seydou Sow bu Kaffrine waaye daal dinay woo tamit euh, ki nga xam ne moo représenté maire yi nekk ci département bi yëpp muy El Hadj Mohamed Dieng ngir ñu ñëw jàppoo ngir ñu mën a am ndam rawatina ki nga xam ne tamit mooy instant bi député di honorable député fant Sall ñoom ñëpp woon a leen ngir ñu jàppoo ngir mën a may ndam ki nga xam ne mooy Macky Sall ci 23 janvier 2022 ci local yooyu la ñuy des ak investiture yi fii ci département bu Koungheul ak commune gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo nekkoon maire nekk seen gox ñu si bëri dañ leen daal di tàmbaat ngir ñu jiite li nga xam ne mooy liste benn Bokk Yaakaar ki nga xam ne lañ jàpp ne moom moo ci wuteek ñeneen ñi muy maire de Ribot Escale muy euh, Yaya soo honorable député moom nag euh, jafe-jafe yu mu amoon ak nguur gi moo tax daal duñ koy tabb waaye ñuñ mën a lim te ñu daal di leen teg ci seen commune bokk na ci ministre Mayacine Camara ci Koungheul Amane Ndaw ñu daal di koy samp ci Ribo Makhari Mbaye ci Saal Escale Fass Cekkeen El Hadj Mohamed Dieng Lour Abdoulaye Ka Ribo Amadou Yoro Ka Gent Paate Mbuuru Ka Mak Yop Mondaw Misra Waden Moustapha Ndong ak département bu Koungheul bi di euh, Socé Diop Dione. Actualité nationale. li nga xam ne mooy élection ba léegi gis nañ ne majorité présidentielle bi ci investiture bëri na ay wax ak jafe-jafe yu bëri euh, rawatina fële ca Tamba ki nga xam ne mooy ministre des forces armées di Sidiki Kaba euh, gannaaw ba nga xamee ne daal duñ koy tànn ngir mu jiite euh, gox ba di commune ba daal dinay bind bataaxal moom tamit daal di rafetlu bu baax loolu nga xam ne njiitam di président Macky Sall moo ko daal di jël daal di dalal xelam ci ne du def beneen liste boo xam ne day xëccoo li nga xam ne mooy mairie bi waaye day daal di ànd ci bëgg-bëgg ministre bi bi boo boog président de la république muy Macky Sall daal di wax ne dina jàppale ñi nga xam ne ñoom la fa coalition benn Bokk Yaakaar teg jàppale leen ba ñu am ndam ñoom tamit le 23 janvier 2022 foofu ca Tambacounda. Euh, ñu daal di àddu ci euh, génn àdduna ki nga xam ne mooy euh, Chérif Thiam nekkoon ki nga xam ne journaliste daal di ñu yónnee ko mu nekkoon na représentant des STV bi fële ca Kaolack moom daal démb lan lañ daal di annoncé génn àdduna rédaction xibaaru Bambuk di ko jaale ñi nga xam ne ñooy waa 2STV njabootam ak képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu presse. actualité internationale. mbootaay bi nga xam ne moo nekk ci euh, organisation des nations unies ñu koy woo au commissariat des nations unies amaloon na benn euh, daje ci Afrique euh, de l'Ouest ngir waxtaane wala boog tàggat journaliste yi ci li nga xam ne mooy promotion des droits humains maanaam ñoŋal li nga xam ne mooy àq ak yelleef nit ñi loolu nag li tax ñu daal di koy amal mooy fexe ba ñi nga xam ne ñooy favoriser les médias indépendants mooy média indépendants yi ñu daal di leen ñoŋal daal di leen jox seen Euh, gëdd loolu nag ñu ngi ko amaloon gannaaw ba nga xamee ne bëgg nañ ñi nga xam ne ñooy nekk ci métier bi daal di xam lan mooy liberté d'expression waaye tamit lan mooy liberté euh, de presse ba seen liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def te muy liggéey muy euh, presse ñu daal di koy def ci anam bu mu gën a rafetee. sport.